boo xoolee sëriñ Cheikh Astou Faye ak sëriñ Xaadim bokk yi ñu àndal yépp ak bokki waa kër sëriñ Touba yi nga xam ne ñoo fi daje walla waa kër Maam Mor Sali bu la neexee wala nga jàll ba ci Maam xam nga ne kon lépp daje na fi loolu nag fow ñu seede leen ci sëriñ Muxtaar cantuk sëriñ Abbas ci menkale gi nga xam ne def ngeen ko bokk yépp kenn ku ne yëg ko te ku ko yëg ku nekk def ko muy sa bànneex ginnaaw bi mu nekkee ndigali sunu boroom loola sëñ bi di la ci sant yàgg mbooleem ñi nga xam ne ñoom nga bokkaloon liggéey bi waaye ñaan yàlla sunu boroom ki nga xam ne moo ko tàmbali woon di sëriñ Mamoor tuyaaba ji fekk ko fa mu nekk te kenn ku ne xam ne amoon na ci bëgg-bëgg ak yéene ak pas-pas loola moo tax sunu boroom it du sànk jëf àggale na ko tey ñi nga xam ne ñoo ko fekkee fekkee nag desandi fi kenn ku ci nekk ñaanal ko yàlla sunu borom bëgg-bëgg bi mu ci amoon ak yéene jëm ci amoon lépp sunu borom defal ko ko ndax sunu borom mën na ko loolu lépp nag dafay tekki ne mbirum sëriñ tuuba du dellu ginnaaw ko bi nga xamee ne yebal na borom Darou Mouhty fii bu mu nee fii mooy lépp lu aju ci ngat bi nga xam ne mooy suufus borom Darou Mouhty te fii di benn pakk ci biir pakk yooyu mu nekk loo xam ne bu ñu ko xoolee bi fi borom Darou Mouhty nekkee. li nga xam ne moom la ñu doon dund sëriñ Mahmoudan bi mu ñëwee weesalee na ko foofa bi sëriñ Mahmoudan demee sëriñ Mamor weesale na ko foofa bi sëriñ Mamor demee ñi fi desandi nga nekk ci bopp bi te yàlla na yàgg weesale ngeen ko foofu ba yaakaar na ne lii tey ku ko gis di nga xam ne liggéey ba woon démb moo meññetu tey loolu moo tax euh, faw ñu sant la ci bu baax ak gërëm la ci ci taxawaay bi ndax ku def dara rek da ngaa bàyyi dara ndax jamono toll na foo xam ne lépp looy taxawal lu nekk su fekkee ne xooloo bu baax la la ca war ak la nga xam ne mooy la war a jiitu soo maywul du sotti waaye nag bàyyi lépp ite yëpp dëgmal lenn loolu it ku ko defit mën ngaa dogu sa borom ne dina dina mën a àgg loolu moo ko àggale tey yàlla mi nga xam ne dara tawu ko yàlla na leen ci yàggal ak ñi nga xam ne nga ko bokkal sëriñ Mahmoudan ñëpp ak ñi nga xam ne ñoo bokk dëkk bi ak tund wi mu nekk nag liggéey boo xam ne dolliku na ci liggéey yi nga xam ne moo fi nekkoon ndax aw sas la ci képp koo xam ne kii ab jullit nga bu lii taxawee nag nga xam ne beneen liggéey taxawaat na boo xam ne bi daf laa moomaat mu xam ne bàyyiwu la nga moom sa bopp kon loolu rek yaakaar naa ni borom xam yi waxtaan nañ ci te dañ ci gën a waxtaanaat waaye rek kaddu gi mooy indi cantuk sëriñ Abbas ak ngërëmam ci mboolem bokk yi nga xam ne teew nañ fi ak mboolem liggéey ñi nga xam ne moo nga àndaloon liggéey bi ak ñi ko doon taxawee yëpp mu sant leen ci gërëm leen ndax xam ne liggéey borom daaru mooti la ci ci ci ci ci ëtti borom daaru muxti yi la bokk waaye lépp nag liggéeyu Serigne Touba la ndax sëriñ Touba moom képp koo xam ne kii tëbbal na la waxtu wu nekk boo gestoo rek bu fekkee ne teg nga ko fa nga ko war a teg boo gestoo di nga ko gis boo sa kanam da nga ko gis sa ndeyjoor ak sa càmmoñ ndax léppam noonu la dafay ndar képp lu muy joxe te loolu mooy li nga xam ne moom lañu war a gëm di ko dundal du nag borom daaru muxti moonu boole ci moom te mu doon kenn ci moom koo xam ne kii dem kenn nattablewut li mu doon ci moom te ñi mu bokkaloon Maamoor Anta Sali ñëpp nangul nañ ko li mu doonoon ci moom loolu mooy li nga xam ne nun mooy sunu bunt ci moom te moo nu bàyyi ci moom te yaakaar naa ne borom daaru muuti lépp loo xam ne taxawal na ko ci nekkuk Serigne tuubaa ak ci ginnaaw Serigne Touba mën ngaa wax ne sax bi fi Mamour Anta Sali nekkee ak bi fi Mamour Anta Sali jógee ak bi nga xamee ne Serigne Touba dugg na ci liggéey boobu ak bi nga xam ne Serigne Touba dem na ba dellu si léppam dara mos cee génn borom daaru borom daaru muti léppam dara mos génn Serigne te loolu boo ko boo ko xoolee ci mbind Serigne Touba mooy li nga xam ne moo ko moo ko firndeel te loolu mooy li ko amal mooy li mu wax ne mos sa taqalikoog moom ci ak ndaw ba ci mag mos sa réeroog moom itam ci dara. mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu di leen sant. di leen gërëm cant gi yàgg na lool mooy ba sëriñ maam moo tàmbalee liggéey bii ngeen ànd ceeg moom te mosu leen cee daj mosu leen cee jóg mosu leen cee def dara kon ameel nañ leen ak cant ndax dangeen ngeen ko ànd ak moom mu tegoon ci bakkanam ne soxlawu ma dara kër gii rek euh, barab bii rek laa bëgg mu wàgg muy jumaa ji moom rekk may sama yitte aw ma jeneen yitte loolu man ak màggalu Tuubaa la ma ko wax damaa dem yónnee ci moom jox ko juróom fukki junni ne ngóor si yóotal ma ko ne ko maa ko def ci liggéey bi mu ne ko doxan dem nu dikk mu ne ma sëñ Cheikh ku ci def ñaar fukki dërëm rek ameel naa la bor ndax man dara du sama yitte loolu jumaa jàkk moom rek mooy sama yitte loolu firndeel na ko bi mu fi jógee kenn doonul ci moom benn dërëm li mu fi bàyyi lépp lañ ko def ci liggéey bi kon nag ñu ngi koy sant te di ko ñaanal te wax ne yéenam jooje nga xam ne àggale nga ko tey yow mi ko àggale ak moom mi ko yéene woon ba tàmbali ko yàlla na leen yàlla bokk fay barab bi nag loolu jomb ko ndax bi sëriñ bi jàngee ba ñëw ci borom daru da ko ne sama bokki tay ba njaañ ak njigal day dañ maa bëgg a sancal ab dëkk mu ne ko bu ma tuddati loolu koso day dëkk boo xam ne sëriñ Touba moo ma ko sant moo ma ko euh, sancloo ma sanc ko te lu ma fa mës a liggéey moom laa ko yót musuma faa liggéey dara ba lekk ko kon damaa bëgg nga dem nekkal ma fa mu ne ko man de boo ma ñaanalee danaa fan mën a nekk mu ne ko soo demee mahmadan na nga sax ci jaamu yàlla ak liggéey ku la mën di jur te jaamu ko yàlla bu yowmal xiyaamee da nga ko rëccu lu la nit ñi jox jox te liggéeyoo dañ naa li mu lañ koy jox fu mu aw kon na nga sax ci yaar yooyu boo demee mu dikk ci sax ci yaar yooyu nekk fi lu ne daj na ko fi lu ne tumuraanke na ko fi waaye mu sax ca ndigal la rek nga xam ne taalibe ga ak ndigal la looloo tax lii ak si tey jii barab bii looloo tax ndax borom daaru dane lu ma fi mas a liggéey sëñ Touba laa ko yoon musta dugg ci sama kër musta dugg ci kër keneen nga xam ne loola la sëñ Mahmoudan fab gànnaayoo ko taxaw nag dégg nga taxaw nag sëñ Modou Moustapha dane dama koo yéem ngir musumaa nuyu mukk te joxuma dara sëñ Fallou ne dama koo yéem yar bi ak taalibe gi xam-xam bi nuñ koy boole sëñ laa ne sëñ Matar Samba dama lay laaj lu Ceerno Gane Mahmoudan sëñ Matar ne ko ah mu ne ko ah baax kat puso bu réer la gone mën na koo for mag mën na koo for waaw lii la wax kon loolee ca la nekkoon teg ak tànkam ci taalibe bàyyi lépp jëndi ko ak taalibe yaakaar sëñ bi gëm ko di ko liggéeyal dañuy wax fii bay wax ak seex Say mu ne bàyyi leen Cheikh Say nun ñëpp mooy sunu sëriñ te boobu mi mu mu ngi ko yor di ko jàngal mu ne seex Say mi ko nun ñëpp mooy sunu sëriñ nu dikk kër sëñ Abdou Lahat mu toog ci romb jaan gi bëgg a nu ma ñoddi nga ganaay li mu ne ma mook toog ci lal beyam nga xam ne kenn royu ci ak taalibe waaw kenn fekku ci ak taalibe loolee nag moo waral lii tey kon ñi ngi leen di sant yéen mbooloo mi mépp di leen gërëm di sant sëñ Moxtaar mii ak rakam Abdoulaat mii ak gone yi fi Maamoor Baay yëpp ñi ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax ne seen baay xalal na leen yoon wi dox rek moo ci des aw ngeen yoon wa nag li nuy ñaan nag yàlla bu leen seytaane man yàlla bu leen bànneex man yàlla bu leen àdduna man ba ngeen dëpp waaye fii ngeen jaar mooy yoon wi loolu nag lañ leen di ñaanal ndax yéenay sunub sàkk ndax ku fi jaar ku ci sëñ Mahmadan soo sañoon dëkk bi day mel na la gënal ku fi jaar ku ne it def na ci yow loo xam ne ku fi jaarul defee su ko ci yow ci nun ñi fi jaar ñëpp nag kenn di desul ñi ko muritoog ñëpp a ci yem ak ñi fi jaar di jàng ak ñëpp ndax dalay wax boo dikkee liggéeyal ma wala nga liggéeyal sa bopp waaye doo fi nekk di taxawaalu sañu ma leen nag doo taxawaalu ndax mag nga mu kàllaf kenn du ko ne doo taxaw waaye sañ nga ko ne nag doo taxawaaloo fi man soo liggéeyalee sa bopp ànd na mag yow boo jàngee ànd na mag yow boo ma liggéeyalee ànd mag yow lii rek la la saxoon nekk ci lu ko sëriñ bi sant mu def ko bu ko sëñ Moda Balla santee mu def ko sëñ Moda Balla woo na ko di ko loo ruuj loo ko ruuj loo ko ba ba ba jant bi so asamaan sib bi sëñ Modu ne ko di suba laa bëggoon mat jëng jóo ak alsaan loo jëndi ay fas mu ne ma seex demal boo ne be ngam la sill na fas yëpp ñëw bi ma dikkee mat sill indi ñeenti fas bi ñu naanee attaaya mu dem ca tool ya xool ne man da ñeenti fas laa gis wol ma ko mun ne ko dama faa bàyyi ñeenti fas yi ngir euh, tool bu mag bi mu ne ko buy tool bu mag bi tool ceerno bii mooy tool bu mag bi dellu laa wax indi fas yëpp ku reelu ku ñuy wax bay daan comme ne ko ah am nga taalibe de waaye doo am ji mag <laughs> lii la ko wax keroog kon lii sëñ max Mahmadan ci la tegoon tànkam ti te mosu cee dëpp ba mukk kon nag sëñ Maxtaar ñi ngi leen di sant di leen gërëm ndax bi maam Mor bëggee lii bu demoon mënoon ngeen ko sàggane ba du agsi fii bi mu demee mënoon naa bañ a mel nii mënoon ngeen ne li mu fi bàyyi woon lan ciy def bu ci yemee baax na bu ci yemut baax na waaye da ngeen a laxasaayu li mu ci bàyyi woon ngeen dolli ko ba def ko ni ñu ko bëgg a defee ba ba ba tey jii sëriñ max moo doon xolam sedd na moo di xarit si li mi sëñ bi ne da fi am yaari at te bàyyiwu ko kenn it xolam sedd na am na fi yaari at sëñ dan soog ko ñëw ndekete booba sëñ dan lañ koy tey la ñuy tëyal suuf si mu am fi yaari at yàlla yoo xam ne fi la nawet kenn fekk ko fi yorul soxna yorul dara kookee xolam sedd na ñu fi jaaroon ñëpp it sedd na waaw yaakaar lu dul sëñ bi sëñ Abdou Khoudous sit xolam sedd na waaw ndax daa wax ne sëñ Mahmadan musta jooy ak man sama ndigal rek lay déglu lu ma ko wax rek dana ko def lu muy def rek dana ma ko tàgg te lu ma ko ci digal dana ko ci def sëñ Abdou Lahad nag la xolom gën a sedd ndax daana nekk fii dana fi ñëw ñetti yoon ci moom bu set dana fi ñëw ñetti yoon seet si ko sëñ Fallou at mu jot dana fi ñëw kilifa yooyu yëpp dañ daan ñëw ci moom di waxtaan ak moom muy joxe addiyaam di leen siyaare ji di def lépp mu di ko def kon ni ñaan waa dëkk bi bépp yal na yàlla dimbale te jàppale leen te ngeen taxaw nag ci liggéey bi sëñ Moxtaar mii day du leen digal mukk lu jëm ci boppam du leen digal mukk lu jëm ci këram waaw yoonu yàlla rek ci ci la leen teg moom la leen di digal ak ak ak li sëñ bi santaane ak li sëñ bi bëgg waaw loolu rek lay digle de waaye wóor man mi ko xam ne xam naa ne du digle mukk loo xam ne ci boppam la jëm du digle mukk loo xam ne ci biir këram gii la jëm duna kenn tabaxal mam néeg du na kenn jëndal ma lal du na kenn jëndal ma oto du ko wax kenn waaye nag yoonu siraatul mustaqiim it bàyyam jaaroon moom rek leen di digal kon nag nun ñëpp nan maas ci jaar ci yoon woowu te ñaanal ko mu yàgg fi moog Abdou Lahad mii yàlla yàggal leen fii te wéral leen te musal leen ci ndog yi di sant nag ñëpp sëriñ bi nanga nu santal sëriñ Abbas ne ko sant nañu ko lanu waxante woon ak moom noo ngi ci fas yéene doon ab taalibe loolee nu eh, borom daaru dénkoon eh, sa sëñ sañ mu eh, daa balla ñoom ne leen ku fi nekkal sëñ Touba def leen ko muy sëriñ Touba nee ko nu it loolee ñunu dénkoon ku fi nekkal Ceerno mu def ko muy Ceerno rek nu it foofa lan nekk te duñ fa jóg ba mukk nag waaw ci loolu rek lan ne nag nu ko santal te gërëmal nu ko taxawu nanu dimbale nanu jàppale nanu kon nag noo ngi koy sant di ko gërëm di fas yéene feddali sunu laxasaay fas yéene ànd ak moom ba fawwu waaw te ci ci lépp lu mu soxla rek ñoo ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp góor ak jigéen dëkk bi ñëpp ñu ngi leen nuyu ak taalibe yi yëpp ak fu ab taalibe mën na te te te te yaakaar sëñ Mahmadan ñi ngi lay sant ñi ngi lay gërëm ñi ngi lay ñaanal loo man ren yàlla na nga mën lu ko ñi ngi lay ñaanal ku taxaw ci bis bii tey man leer na ma ne loo fi ñaan dana am ndax ci am na xolam sedd na Mahmadan xolam sedd na Mawla Balla xolam sedd na sëñ Abdou Khourous xolam sedd na sëñ Abdoulaye ak sëñ Fallou seen xol sedd na moo tax ma xam ne lu fi waay ñaan tey jii yàlla dana ko dogal